Eh, eh, kilifa gi su dee wax mu mel ni la muy wax nag déggatuñu ko léegi la tax muy wax loolu dañ ko war a utal saafara xam nga nit mooy toll foo xam ne du ay wax sax moo koy moo koy jubbandi daa am lu koy jubbandi te loolu foofu la yoon man pour man man sama pas-pas laay waxee foofu la yoon wi war a toll ndax euh, barki démb ajuma ji weesu man gisuma mais li may ñëw ci yoon bi laa gis ne ndekete rompo yang Mbàkke bi ba ci buntu garage yëpp dañ ko taal ay ay ay pône man man man man dama ko set man fekkewu ma mais bi may ñëw laa trace yi diko di diko top, di ba garage ma xam fofu foofu yëpp dañ ko taal pône mais léegi waxuma ndigal li mais ñii dugg Tuubaa dañ fi fekkul ay mourid wala ñan lañ fi fekk wala mu ay mourid dañu amatu ci Tuubaa ba ñu sëñ Muntaxa wax ne buñ ko fi defati ñu leen di bay ñu di ko fi defati kon kon ay murit dafay nekkatu te de barki sëñ bu benn mag benn mag képp bu ko ci yoonu buntu rond-point bi lay taxaw kenn du lolu wara am pour lolu saafaraw man japp naa ne kuréel gi Vous ba upp jooni nit yo xam ne kenn ku ne da ngay am carte de membre e ba 1000 un ba de nga koy nga koy noté ku am carte ma am formation ñu ñu teg leen ci ay base lu fi naret am ci dëkk bi ñu taxaw ne du fi am parce que loolu la sëñ Muntaxa programme bu fekkoon ni da koy jox Baay Faal ñu bàyyi noonu rek lam doon saafara bu saafara hmm. kon am na yéene bu mu ci am moom waaye nag nun Baay Faal nun nun laa wax nan gën a góorgóorlu jàppale kii fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall ci yéneen mooy li ko sëñ Muntaxa dénk dara bañ ci yàq te nun rek ñoo ko mënal hmm. ñun rek ñoo ko mënal ndax noo nooy ndaw ñoo ñoo war di tere ñoo war di def lépp hmm. parce que mbooloo bi muy sos pôle de communication ci la mooy wax àdduna moom lii moo am wax ak jëf te wax ji nee naa leen yoonu murit nekkul ne amul communication parce que nit ñi ñu ngi waaraate ñu ngi wax mais man lu ma jàpp ne moom moo amul mooy ñi war a wax ñoo waxut ñi war ñi warta wax ñooy wax mais yow si euh, mbedd mii mënu nekk ci dëkk bii dama ko yem moo tax ma koy misaal ci moom fu mu romb ñëpp xam ko ci caaxaan ak ci foofu ak ci lu dul dëgg dégg mu wëlbati ko bëgg a taxaw ci ci ci ci nit ñi bëgg leen waar mais nit ñi duñ ko gëm dañuy wax ne sawaay bu jugee fii fële la nekk ci ci ci ci li sëñ tuwaay tere mais kooku mën na waar mën ta waar du mais nit ki war a waaraate dafa war a defar jëmmam ba li muy wax nit nit ku koy dégg gis ko ci moom gis ne kii murid saarix la te mu ngi jëf lu jëf mel ni sëñ Fallou Ndeye nii mais loolu amatul léegi communication su taxawee léegi ñooñu ne da for leen waa joo xamante ni nii xëy na télé yi miin nañ ko rajo yi miin nañ ko nga woo ko nga dem kaay waxtaan mais kon ça ne sert à rien du jëriñ dara parce que ñooñu ñu ngi wax mais amul amul njëriñ parce que ñi ñuy wax nit ki mënoo tiim bool bool bool boo xam ne sëñ Tuubaa da koo seexlu nga di ci lekk ba pare bëgg a téye loxo yi nit ñi mënut a nekk te loolu moo fi am ci yoon bi loolu moo fi am ñiy wax ñun mënuñu leen dégg parce que nit ki su la gën a defar li mu lay wax foo foo koy déggee yow li mu see xam nga sëñ Sow bi wax na ko léegi. dafa am kilifa bu baax damay bañ a tudd tur dafa waxoon ni am na ñoo xam ne fuñ leen seen mën nañoo wat ni borom Tuubaa nga mu ne ñooñu war nañoo defar seen jëmm ba fa ñuy nekk ñu xoolaat ko ndax fu ñuy dem rek nañ ko xoolaat ndax fu ñu leen gis dañ naan sëñ Tuubaa nga borom Tuubaa nga daal di toog ñooñu waruñu defar seen jëmm da ngaa yaakaar kon mbooloo mu sos wala mbooloo mu ne da war a def tàbbi ci ci anam yooyu mais loolu doxul kon yoon bi li fi ne ñëpp mën nañ ko saafara mooy ñu dooni murit dooni taalibe taqaloo ànd ak sëñ am di Modou Mbende mii ci liggéey bi ko sëñ Mountakha dénk ñu ànd ceeg moom liggéey ko déglu ci ndigalam nag ndigalam ndax lu ñu mën a sos fii wax ko war nañoo dem ba ci ni ko ñun yéene jii lañu ñu am ci liggéey bi nga xam ne sëñ Mountakha liggéey loolu nañ ko yéene bii lañ ci am ànd ak yow ci anam yi ci wàllu communication wàll wu mu laaj ndax Baye Fall yi am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi dañuy bàyyi seen yitte seen kër sax talatuñ ko di sàmmonte di wër dëkk bi fépp fu ñu dégg lu safaan bu naqari sëriñ bi ñu dem fa li jëndi ko ñooñu néew ñu si doole waaye mbooloo bu fekkee fukki nit la bu matee junni moo gën. moo gën mais léegi mais takk der yi lu ñuy liggéey lu dul seen parce que ñoom dañ suñ suñ ko ëpputoon doole takk der yi duñ dugg Touba mais kon euh, ëpp nañ leen doole ba dugg si dëkk bi. léegi dëkk bi nag dafa am fu ko sëñ ni ko sëñ Touba tax ñooñu war nañ leen bàyyi saa bu ñu bëggee dugg ci dëkk bi rek. wër dëkk bi di taal ay wër jëm jëm si jumaa ji mel ni ay murit sa jumaa dañuy di taal pono ba si jumaa ji ñu toog di leen seetaan mais pour la nañu doon ay murit doon ay saarif te gëm borom Tuubaa te fas yéene liggéeyal ba faw jël suñu bakkan bi ak suñu deret yi lépp jox ko borom Tuubaa ndax Ahmadul Xadim de loolu la defoon boppam tax koo jóg waaye jaay ay jabootam wàcc nañ fi liggéey talu leen ngir ngir dem na ba maam Cerno wax ne bu fi kenn naratee faatu yàlla Moodu Awa Balla bi Cheikh Awa Balla faatu hmm. te boobu borom Tuubaa ci tukki te lépp mu jaral ko ngir ñun amul dara loo xam ne borom Tuubaa ñàkkoon na ko ba tax mu di ko wuti amul loolu suñu jëmm ji léegi loolu kooku xeex ko ba samp sanc dëkkam bii mu mel ni mu mel ñun ñu toog ne ay murid lañ ba pare koo ne doo saa mu mer ba pare boo gisee luy luy naqari sëñ Tuubaa nga sa dina la nga ne murid maa ngi jéglu ci kàddu yi baax asalaamaaleykum